أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا والصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al an'am ci kàttanu borom bi tey noo ngi jël juróomi aaya aaya 50 95 96 97 98 99 juróomi aaya yu nekk sunu kanam sunu borom subhaanahu wa taala diñ ci jàngal juróom benn mbir juróom yooyu juróom benn mbir yooyu bi ci njëkk mooy ci aay yi nekk sunu kanam ñun ñëpp ñu war a ànd xam ne allahu xaaliq kulli shay sunu borom subhaanahu wa taala mooy ki bind lépp lépp moo ko sàkk amul lu des xaaliq kulli shay sunu borom mooy ki amal lépp li nu xam ak li nu xamal li nu xamul li nu gis ak li nu gisul lu mu mën a doon sunu borom subhaanahu wa taala mooy ki ko amal da mu ne xaaliqu kulli shay moo amal lépp moom yàlla subhaanahu wa taala amul kenn ko amal dara noonu mu ko amalee noonu la ko moomee te noonu la koy donnaatee walillahi miraasu samawaat wal ard ëllëg noonu la ko yàlla di donnawaatee ndax moo ko moom ku nekk nag li nga fi am léeg-léeg nga fëgg sa dëgg dënn ne maa ko moom waaye yàlla dala ko abal rek parce que nga ñëw mu foqarti ko ci yow nangu ko nga xam ne yoroo woon dara jàng nañ démb bi ngeen di ñëw ci àdduna indaale wu leen woon dara bu ngeen di dellu àllaaxira kenn du yóbbaale dara kon lépp yàllaay boroomam xaaliqu kulli shay moom yàlla mu ne wa huwa rabb kulli shay ni mu nekkee xaaliq kulli shay noonu la nekkee rabb kulli shay moo moo yar lépp moo moom lépp ar rabb mooy boroom mooy ki moom mooy ki yar mooy yàlla tabaraka wa taala koo fi dégg muy xëccu na nangam bi maa ko moom nangam seetaan ko ay fan ay semaine ay weer at léegi mu dee bàyyi ko fi kon moomu ko fi nga ko fekkoon fi nga koy bàyyiwaat moom sunu borom subhanahu wa taala rabbu kulli shay moom moom moom lépp walisa loolo tax wajaba an yu ahala dañ ko war a def yàlla kon comme moo bindu lépp moo moom lépp kon li war ci nit ñi war ci jaam ñi ñu def ko yàlla bañ a def ay ndombaak ay petaawak ay xaawak ay béjjënak ay lamak ay gënnak ay kuurak ay xàmbak bañ a def loolu yàlla ndax loolu du yàlla bañ a def nit ñi it ay yàlla bañ a def kilifa yi it ay yàlla ndax dun yàlla koo fi ne yàlla da ngaa yabaate rek waaye léegi mu dee ñu gas ba mu xóot suul ko nga yëg ne du woon yàlla bi ngeen di dund ak léegi ñaata nit ngeen dégg ñu leen di adresse a baat boobu naan diw yàlla la yenn saa sax nga dégg ñu takk ay rajo di ko way diw yàlla la di yuuxu ay fan léegi mu dee ñu dugal ko ci morgue bi sang ko sang ko suul ko balaa nit ñi ñëw buñ ko suulee ba pare sax nag la ñuy def déclaration daan ne kilifa gi dee na kon du yàlla ndax yàlla day dee ah kon yéen da ngeen gëm ne yàlla day dee lu tax kenn weddiwu ko yàlla day dee waaw yàlla day dee yaa- kenn waxu na nag nii nii nii waaw yàlla day dee hayyun laa yamut hayyun laa yamut yàlla kuy dund la mooy kii dund ki fi sax huwa al awalu wa zahiru wal batinu wa huwa kulli shay'in alim moo ngoog mooy yàlla waaw koo fi ne yàlla la rek an kaa tuumaal waaye xam nga ne du yàlla an kaa tuumaal rek te bu ñu guddee fan ñu xam ne du yàlla kon nag mbokk yi yàlla moomu nga xam ne mooy ki bind mooy ki moom moom lañ war a def yàlla wahdahu moom kenn duuna siwaahu waruñu koo dendale kenn wala lenn jaaduwul tey sa kilifa bu la liggéeyloo nga bàyyi liggéey bi dem liggéeyal beneen kilifa sa kilifa googu lu muy day kontaan ci yow wala dalay mere ah dalay mere sa baay bu la yónnee nga bàyyi sa yónninu baay dem bàyyi yónninu bàyyi keneen sa baay day kontaan ci yow wala dalay mere lu tax lu tax mu lay mere mu ñëw ne la yow foo nekkoon nga ne ko man bi nga ma yónnee damaa romb beneen paa rek mu ne bàyyil sa papa lim la yónni kaay ma yónni la ndax sa papa dina kontaan ci yow kon ndax dina yell yàlla bind la nga bàyyi yàlla jaamu keneen yàlla moom la nekk sa boroom sàkk la bi mu lay sàkk kenn fekkewu ko bi ngay judd kenn mënu ci dërëm yàlla di la màggal di la dundal doomu aadama buy màgg ndax dafa am ku ci jàpp pour doomu aadama màgg bi ngay jógee ci liir di ñëw di raam kan moo ci jàpp di la xëcc di la xëcc pour nga mën a nekk pour nga jóge ci liir ñëw ci ci mag kenn kon yàlla subhanahu wa taala mooy ki moom lépp moo def loolu lépp moom yàlla kon moom borom boobu moom moo yeyoo jaamu waruñoo jaamu waruñoo topp kenn ku dul moom loolu dañ koy jàng tey ci sunu aay yi nga xam ne moom moo nekk sunu kanam ñaareel bi mooy taqrir qudratullah ala kulli shay danañ jàng tey saxal gi diine saxal sariya saxal ko ne yàlla mooy ay moo am kattan yàlla borom kattan la qudratu ala kulli shay yàlla dafa am attan ci lépp amul kenn wala lenn ku attanu yàlla kattanu yàlla nekkul ci sa kaw amul ndeysaan léeg-léeg nga gis benn waay bu ñu bu ñu fal ndomba tànk ne ko yaay jiite réew mi ci loolu ñu ne ko yaay jiite réew mi day dem ba yaakaar ne moom moom moom réew mi commencé di dogal ak a wax ak a def yàlla ñëw coppati ko sànni ko fële ah léeg-léeg nga gis benn directeur général boo xam ne bi muy romb ñi mu doon liggéeyal ba ci policier yi sax ndeysaan léeg-léeg nga gis benn policier boo xam ne dafa retraité ndeysaan gaa gaa yi di ko romb di ko saaga waaw ndeysaan te ba mu ca tollee di sol tëni oto bu mu ne nii baaraam rek nga taxaw waaye bi mu demee ba nekk ci oto bu mu ne nii ñu ne ko eh waay waay xam waay mu nga gis nga kon doomu aadama du tus du dara sunu borom kattanam jalla jalaaluhu moo tegu ci ñëpp te kenn nag mënu koo génn nag te yàlla borom kattan la de yàlla kenn ëpp ko doole ñëpp moo leen ëpp doole ñëpp moo leen mën ana ana ñi doon def kën fu ba nekk ay ceinture noire ñaata dan kan moo dàqoon kën fu ci àdduna bi anamu dee na ah lu tax kën fuwul malaaka yi ana ki dàqoon taay kawoon di ci àdduna bi ana ki dàqoon karaate ci àdduna bi am na benn scène bu tudd National Geographic dañ ciy génn ay film am na benn waay ci àdduna bi ñu ne aqwa rajulin fil alami kii moo ëpp doole ci àdduna bi aqwa rajul fil alam ki ëpp doole ci àdduna bi ah ko kon moo mën ñëpp ndax ñëpp moo leen ëpp doole anamu yàlla wan na ko ne amoo benn doole ki nga dégg ñu naan borom doole wala bu yàlla yëngaloon bëñam moo gën a tuuti ci ci ci yaramam bi bu yàlla yëngaloon bëñ bi rek léegi ñu xam ne moom moo gën a yambare ci àdduna bi bëñ bi kese bëñ bee gën a tuuti su ko yàlla yëngaloon rek léegi nga gis mu ne nii tëdd une semaine du sax wax xam te amul doole allahu akbar yàlla mooy aji kàttan ji yàlla mooy borom doole bi qudratu qudratullahi ala kulli shay kàttanu yàlla ak dooleem dafa tegu ci lépp yàlla lu ko neex rek mooy am doomu aadama naa bajantu di cëppi cëppi di daw di def lu ko neex waaye lu mu wiiri wiiri wiiri wiiri li neex yàlla mooy am moo tax yàlla mu ne li may def ku mu neexul man lam yarda ala qadaay man yàlla li muy def ku mu neexul samay dogal boo boo ci àndul d'accord mu ne na nga fexe ba bu la asamaan tiim na nga fexe ba dox ci beneen suuf bu dul sama suuf si na kenn ci ñun mere yàlla war daa di jël ay valise am yenu ko ne man damay génn suuf si acca bismillah ku mere sa papa fii nooy def ay génn kër gi ah dem beneen kër wala nga génn dëkk bi dem beneen acca léegi nag nañ mere yàlla ñu yenu sunuy valise ñun ñëpp ñu génn dëkk bi ñu dem beneen dëkk bu dul dëkk yàlla acca ñu dem ñu fexe beneen asamaan tiim ñu bu dul asamaanu yàlla bi ñu fexe ñu noyyi beneen ngelaw bu dul ngelawu yàlla bi su la yàlla ne lu tax nga ne ko dama laa mere aywa ndax mën nañ ko kon yàlla moo nu noot amul kenn ci ñun kuy rëcc mu ne waaye waa ilmihi bi kulli shay yàlla lépp la xam nit ñi ci àddina bi ñaata lañ ah 7 milliards ah environnement 7 milliards 7 milliards yooyu yëpp yàlla xam na leen wala xamu leen malaaka yi ñaata lañ jinne yi ñaata lañ ah xamuñu loolu kon nit ñi rek lañ xam te nit ñi sax dañuy sóob rek ñoom ñoo jekki rek daane 7 milliards Sénégal gi sax gars yi xamuñ ñaata lañ dañuy àppaaka rek naan 12 millions da ngay ñëw ci kër di def rapport kër gi fanweeri di def nga ñëw nga ñëw ne maire bi ñaar doom nga am am na 30 mu ne la 3 quart waaye catu ñetta bindal ñett nga bind ñett gi di fekk 30 ak ci kër gi ñooñu nag ah bañ nañ ko sax ba ñaan ñaata xalima maam yàlla nga am gis nga bañ laa bëgg a wax ñaata doom parce que am na ñoo xam boo leen waxee ñaata doom nga am rek ñu ne la kaar waaw léegi nag booleel jinne yi booleel nit ñi booleel malaaka yi booleel njanaaw yi booleel rab yi booleel biir géej la fa nekk yàlla lépp la xam waaw lépp lay wan ne yàlla dafa xam lépp bu ñu dem sax ci jinne yeeg malaaka yi dañuy ñëw ci nit ñi rek ci nit ñi yee wan ne yàlla jalla jalaaluhu xam-xamam dafa peeg lépp wa ilmuhu bi kulli shay léeg-léeg nga nekk ci kër gi ndeysaan ñuy ndékki fàtte la léeg-léeg nga nekk ci kër gi ñuy xëdd fàtte laa yee léeg-léeg ñuy ndogu ñu fàtte laa yekkal wala wala léeg la ñuy joxe sax ñu fàtte la léeg la ñuy séddale ñu fàtte la ndax dee bi mu commencé ba léegi am na benn paa bu ngeen fi fekk ñu ne kii ndeysaan yàlla da kaa fàtte moom du dee sunu maam yëpp fii lañ ko fekk moom du dee de loolu kan kan la ban la wax leen ma ko ci Sénégal ban maam bu góor wala maam bu jigéen bu ngeen dégg ñu ne yàlla da koo fàtte moom du dee fii la ko ñëpp fekk acca wax leen ma ko ban kër la dëkk ban dëkk la nekk kon yàlla du fàtte kenn bi nga juddoo ni nit ñi juddoo rek noonu la ñuy dee programme bi ci loxo yàlla la nekk waaw sunu borom subhanahu wa taala mu ne encore wa hikmatuhu fi kulli shay yàlla xereñam a ngi ci lépp kon qudratuhu ala kulli shay ilmuhu bi kulli shay wa hikmatuhu fi kulli shay xereñam moom yàlla loo xool da nga ci gis xereñu yàlla loo xool rek yàlla xereñam a ngi ci xoolal sa bopp xoolal sa bopp buñ lay laaj lenn saay ay mbir ci kàttanu yàlla wala xereñam wala mën-mënam léeg-léeg ngay sori daan dem da nga xaar ma xool asamaan xaaral ma xool géej xaaral ma xool montagne xaaral ma xool xaara déedéet loolu bul sori xoolal sa bopp di nga gis xereñu yàlla tabaraka wa taala jalla jalaaluhu waaw allahu akbar dañu dem kër gi ñuy yare mbonaat yi fan yële paase ñu ànd ak kenn ku am xam-xam wax koo xam ne moom loo rek la jàng affaire mbonaat ñaata façon la mbonaat yi ñaata at la ñuy am mbonaat yi nan la ñuy juddoo mbonaat yi lan la ñuy lekk mbonaat yi nan lañ leen di yare ndeysaan bañ demee ci fu njëkk a dem mooy ci nenu mbonaat yi ndeke mbonaat day nen du jur waaye mbonaat moom bokkul ak xar bokkul ak nit lu tax nit bu amee doom nu mu koy def daf koy yar da koy lekkal di ko jox mu naan ginaar bu nenee nu mu koy def daf koy bóof mbonaat bu nenee day dem yoonam da koy sànni ci àll bi dem yoonam fi mu nen la koy bàyyi dem nit ñi ñooy ñëw jël ko xam ngeen nenu mbonaat lan lañ koy bóofee dañuy gas suuf ba mu xóot lu tolloog loxo ñu suul ko ci biir ñu bàyyi ko foofu ci biir suuf si lañ koy suul bàyyi ko fa mu nekk fa ay semaine mu daal di toj ci biir suuf si xool leen liiru mbonaat après day gas suuf si génn ci biti gars yi ay case lañ ko defal pour bu génnee bu mu dem grillage yu ndaw yoo xam ne du mën a du ci mën a génn dañuy ñëw rek gis na mbonaat bi génn dañ ko calculer sax jour yi muy def ci suuf si nangami fan la fiy def su nangami fan yooyu jotee rek waa ji day ñëw su ñëwee rek gis mbonaat bi mu daal di koy dugal loxoom daal di koy génne yóbbu ko fu ñuy yar mbonaat yi ndaw yi. fekk naa fa mbonaat bu am 100 ans xoolal loolu rek fekk naa fa mbonaat boo xam ne est-ce que 100 ans yi sax tegalul mbonaat bi dafa gumba wallahi alazim rabu àll yi gën a gudd fan mbonaat ci la bokk te xool nu mu tuutee te xoolal kenn du ko bóof ci suuf lañ koy dugal suuf lañ koy suul su tojee rek daal di génn tey kenn ci ñun bu ñu gasee suul si suul bu ñu gasee suul si suul la yow nooy def ah da ngay dee moom ñu suul ko mu gas suuf si génn kan la te mbonaat bi bi muy gas suuf si di génn ban doole la am ah doomu adama bu amee doom na gas suul suuf ko na gas ba mu xool mu suul ko mu ne ko après nga fekk ma kër ga ah ndax da koy fekk kër ga day dee waaye xoolal mbonaat bi mu nenee dañoo gas bu mu xóot suul nen bi gars yi dem toog bi juddu gi jotee mbonaat bi suuf si la xar daal di génn ñëw taxaw xam ne kon mbir yi mbiru yàlla la du mbirum doomu aadama mbiru yàlla la moo tax ku gëmul yàlla alku nga torox nga ku gëmul yàlla toppoo yàlla topp ay caaxaan alku nga ëllëg waaw kon ñetti mbir a ngeew yi ñu sunu borom di xamal moom kattanam dafa tegu ci lépp xam-xamam dafa peeg lépp xereñam dafa matale lépp moom yàlla waaw lu mu bind rek boo ko xoolee gis xereñam moom yàlla doo critiquer mukk lu yàlla bind day xam ne nii mu ko defee noonu la nii mu ko defee nii la war a mel noonu la ñetteel mooy faidatul xalqi nujum mbokk yi léeg-léeg ñu toog fii àddina bi courant coupé wala lumière du am ñu toog gis weer wi nekk ci kaw asamaan si ak biddiw yi ñu bari ci ñun ci seen néewu xam-xam xamuñu lu tax yàlla sàkk biddiw yi tey boo laajoon yenn doomu aadama yi lan mooy njëriñu sàkk biddiw yi ñu bari duñ la tontu waaw wala biddiw yi ni ñu toll est-ce que xam ngeen biddiw yi ëpp nit ñi xam ngeen lool am ngeen xam-xamu bidéew yëpp nit ñi xam ngeen loolu est-ce que bidéew yeeg nit ñi lu ëpp am na ci bidéew yoo xam ne ñoo ëpp suuf si allahu akbar am na ci bidéew laa xam yoo xam ne ñoo ëpp suuf si kan moo sàkk bidéew yi sunu boroom te bidéew yëpp ay vitesse la ñuy daw ay lumière yoo xam ne vitesse yi ñuy daw xëjul ci àdduna bi te benn bu nekk du laal moroomam kullun fi falakin yasbahuun benn bu nekk mu ngi ci place am di féey du laal moroomam yàlla sàkk na bidéew yi pour lan pour doomu aadama jub pour doomu aadama bañ a réer suy tukki guddi wala muy tukki ci biir géej gi wala mu nekk ci àll bi am na biddéew yoo xam ne yoroo busol yoroo carte yoroo dara waaye ci biddéew yi rek ngay xool nga gis am na biddéew yoo xam ne yàlla def leen orienté fii ñu nekk mooy penku bi am na yu benn groupe bu ñuy wax dubbul akbar nombre ay set biddéew lañ lan mooy seen njëriñ mooy orienté même bateau yi ci biir géej gi suñu xoolee rek biddéew yi dañu xam ne biddéew yi ñun ci penku bi lañ nekk wala sow lañ nekk waaw ndeke kon biddéew yi dafa am lu tax ñu nekk fi dafa am lu tax yàlla sàkk leen yàlla defarul dara rien ci hasard yàlla defarul dara sàkkul dara rek pour dara lu tax mu amal li mu ne dara déedéet yàlla deful loolu moo tax mu ne afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan ba ci yéen seen bopp ndax da ngeen yaakaar ne dama leen a sàkk rek pour dara ngeen sàkk rek pour ngeen di fo da ngeen yaakaar ne caaxaan moo tax ngeen ñëw àdduna moo tax perte na ku nekk ci àdduna di foo kooku perte na ndax xamul li tax yàlla bind ko ki gën a perte ci nit ñi mooy doomu aadama boo xam ne xamul li tax yàlla sàkk ko kooku dafa àl ko perte na ku nar a torox ëllëg yowmal xiyaama nga ko moo tax mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala biddéew yi mu sàkk dafa am jubluwaay lu tax mu sàkk leen mooy al ihtidaau biha fi seyri fi leyli wa fi bahri wa fil barri wal bahr yàlla sàkk na biddéew yi pour biddéew yi di orienté doomu aadama yi ci seen dox guddi ci jéeri ji ak géej gi am na paa yoo xam ne ndeysaan bu ñu xoolee yenn biddéew yi rek dañ naan nawet bi jot na ndax yàgg bi ñu yàgg ci am xam-xam waaw bu ñu xoolee biddéew yi rek dañuy xam ne nawet jot na am na ñoo xam ne bu ñu xoolee biddéew yi rek dañu xam ne weer yi feeñ na ndax am na benn biddéew boo xam ne chaque jour mooy ànd ak weer wi du nekk ci asamaan bi mukk lu dul biddéew weer waa ngi fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sunu borom def na ko ci biddéew yi ñeenteel mooy yatimmu idraku zawahiri l umur wa bawatiniha bil aqli tey dana njàng mbir yi dinañ ko xam ci biir ak ci biteem waaye lan moo ñuy dimbali ba ñu xam ko xel dafa am mbir yoo xam ne xel moo lay may nga xam ko xel sa xel wala mu ne yatimmu idraku zawahiril umur mbir yi ñuy gis di ko jàngat di ko càmbar o bu ñu dem ba ci biir lan mooy tax ñu am ci xam-xam mooy xel suñu xel moo ñuy orienté ba ñu peeg mbir yi ci biir ak ci biti ñu comprendre ko bu baax moo tax ku amul xel doo nit islaam yëkkati xalimaam ne ku nekkul ku amul xel kenn du ko bindal bakkaar loolu pour ñu pour ñu pour ñu leeral leen ko lu yomb la kan ci ñun mooy romb mbalit mi ñu sotti ci ceeb wala yàpp boo xamante ne def na fa cinquante jours ceeb boo xam ne jal nañ ko ba mu am juróomi fan lépp di ci génn ci ceeb bi mu décomposé wu nga gis dof toog ci di lekk teew ñeme woo cee toog lekk lu tax yow soo ko rombee sax sa xel day tey dof bi toog di lekk lan moo tax dof bi di ci lekk parce que xelam du tey amul xel waaye yow demal nga lekk sa première tibb rek da ngay dee ndax doo ko mën a dékku wala ñu ne dof amul xel moo tax xel mi du teey waaw dof bi dafa génn 3 heures du matin di dem dajeeg benn jinne jinne bi ne frein frein frein génne ay saxaar kërëj kërëj mu ne ko yemal sa papa ma jomal yemal képp daal di continuer dox dox bi waaw moo la ñu ne dof du jommi parce que amul xel fii nag yow da ngay génn dajeeg benn muus 3 heures du matin rek muus mi xool la ba di xonq rek nga départ mu nga kon sunu borom subhanahu wa taala def ñu may ñuy xamee zawahirul umur wa bawatiniha bil aql biir mbir yi ak biti mbir yi yàlla ñu may ñu koy xamee ci xam-xam nga gis léegi doomu aadama boo xam ne jàng na ba xam doomu aadama lépp lu nekk ci biiram soo ñëwee sax nga ne ko nangam moo may metti mu daal di bind garab ne garab gii moo lay faj demal ah wala nga ñëw ne ko bopp mooy metti mu ne bopp garab gii la nga ñëw ne biir mooy metti mu ne biir garab gii la nga ñëw ne tànk mooy metti mu ne tànk garab bii la wala garab bi faj bopp mooy faj biir ah mooy faj biir tontu bi mooy déedéet allahu akbar waaye loolu yëpp lan la lan la leen ko yàlla maye mooy ci xel dañu xamee mbir yooyu lii lii la lii lii la lii lii la beneen bi ci tegu mooy yatimmu idraku asrarul asiya bil fiq bil fiqhi sànq la lañu waxoon yatimmu idraku zawahirul umur wa bawatiniha bil aql fii nag yatimmu idrakul asraril asya bil fiq mbokk yi xam sekkere mbir yi lan moo ñu koy may mooy jàng fiq suñu jàngee fiq rek danañ xam sekkere mbir yi fiq mooy xam-xam bi tax nga mën a jaamu yàlla loolu mooy fiq tey nag moom moo manqué waa réew mi nit ñi jànguñu diine jànguñu fiq xamuñu dara waaw dañuy làmbatu rek inna wajanna abaana ala umma Sénégal lépp dinañ ko jàng ba mu des diine moo tax jàng diine sax intéressé wu leen jàng diine waaw parce que dem conférence moo doon def waa ji mu ne ndax dañuy wax ashhadu anna muhammadan rasulullah wala ashhadu anna muhammadan ñaari nit di werante ci loolu ay bilaal yi noddoo kii naan bilaal bi ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan la wax Sénégal kenn du jàng diine da ngay retraité rek jóge ca làmb ja rek utali jàkka ja jox leen ma micro bi wala nga retraité rek ne maay nekk ilimaan fal force ndax man maa ëpp lu ma cotisé ci jàkka ji di di rajaxe rek waaw ku mu neex nga julli si ku mu neex nga dem seen am nañ imaam boo xam ne bi ma ko xamee léegi mën na ñaar fukki at musul julli te yàqul alxuraan tey ci fajar moo ci mujj musul julli laa wax te yàqul alxuraan 24 heures sur 24 day yàq alxuraan xam ngeen yeen julli la dul yàq tisbaar ak takusaan loolu de moom xaw ma xaw ma waaye suba timis jaye bu mu jàng de sama doom bi toog ni ci ginnaaw mos naa dégg bi mu nekkee xale bi mu gën a nekk xale mos naa nekk ci kër gi ma ne ci kaw rek ma dégg muy mu ma ne eh yaayam ma ne yaayam eh waaw kooku du Mohamed mu ne ah kay ma ne ko day rab non xaaral ma jóg ma jóg ni nii sëpp balcon bi ma gis ma gis ñu toog noonu ma ne Mohamed looy def da ngay rab mais déedéet imaam lay toppandoo nu muy jànge wala loolu di jàng alxuraan mel ni subhanallah loolu alxuraan la tey laay nekk ilimaan fal force fal force maay nekk imaam fal force mu jaral la lu ne te yow munoo jàngoo xamoo allahu akbar Sénégal rek nga koy gis ku jàngul jiiti diine bi Sénégal rek ngay gis loolu ma ni la xam naa ko du toog ñaar fukki at musuma julli ci ginnaawam te yàqul alxuraan xanaa tisbaar ak takusaan xam ngeen loolu lu tax foofu xam ngeen foofu lu tax ah kenn du ko dégg waaye timis gee suba tey ci fajara ci mujj laa wax te ku ko weddi suñ jullit nga ñëw ñu julli ji fa timis bu yàqul alxuraan mu jox la cinquante mille
mais ñooñu nekk ci jàkka ji xanaa amul ay borom xam-xam nekkuñu fa.
luñ ci mën déggoo li ma la wax maa ngi nekk imam fal force loo ci mën bu ñu histoire histoire am ci jàkka ji nit ñi bëgg ñu xeex ci jàkka yi dañuy tëj jàkka ji loo ci mën nit ñi bàyyi ko mu nekk imam fal force
ñu daal yàq baat yi rek.
waaw ñëpp nit ñi muñ rek amul naayib amul première naayib amul deuxième moom mooy def lépp
fii tam ñu leen jàkk ji nekk fii waaye su leen fekkee ngeen yi xam ndax day jël micro bi def noonu ngeen taxaw ba mu tardé day jël Non.
micro bi noonu ay problème rek problème rek jàkka yi boo ngee Sénégal Sénégal bi sant yooyu ñu jàkkaar doo ko nekk même moo ko indi ba ngeen fépp la
ancien boxeur waaw kii menuisier la woon retraité ñoo ne da nekk imam fal force
li nga waxoon ne kii kii def ñaar su taal même ku ñun suñu dëkk même ñu jaay Yàq.
ñu nekk foofu ma ni la musul jàngal xuraan te yàqu ku ko weddi bu ñu julee timis nga ñëw ma yóbbu la dañuy yàq ay julli lépp waaw bu yàqul alxuraan naa la jox fukki junni
di bëgg kon mu nga fuñ jëm fiq moo ñuy jàngal mooy tax ñu xam secret mbir yi fiq mooy ñu tax ñu xam jaamu yàlla gi yàlla jàngal ñu yàlla wax nu lan koor julli azaka aji màkk saraxe jàpp jàng alxuraan fiq moo ñuy dimbali ñu xam secret yi ci nekk lan mooy illa bi tax yàlla di ñu sant nañ ko topp waaye bu ñu jàngul fiq xamuñu dara ci diine bi dañuy làmbatu rek di dajale ah mas naa jàngale sang néew ci jàkka ji may wax ba caag rek mu ne ma kaay ma ñëw mu ne ma suufu néew bi dama doon wax ne nit bu faatoo buñ koy sang balaa ñu koy sang dañuy def witteen ci turu yi ah nopp yi dañ ciy def coton bakkani gémmiñ gi pokotaan yi ah oom yi ak cati baaraam yi rek mu ne ma kaay mu ne ma mu ne ma suufu néew bi waxoo ko ma ne ko bokk ci ñu bëri fii dañoo yaakaar ne bu ñuy sang néew dañoo war a écarter awra néew bi ci suuf def fa witeen su ma nekkuloon ci yàkk ma tudd ma tudd foofu ñuy ubbi loolu naka la nit di dee ñuy ubbi awraam ci suuf di fa def witeen te ñu ne la yow bul xool awra néew bi sooy sang néew diggante jumbaxam ba ci óomam waroo koo gis sa bët waru ci tegu kon ñooñu léegi jël huitaine bi di ko fa dugal nan lañ la def te da gars yi dañ koy def de bu ñuy sang néew bi fii ci morgue yi dañuy écarter néew bi xëcc tànk ndeyjoor bi ba am ko xëcc ñu yëkkati ko am ku roof affaire yi parce que xamuñ te charia ne leen néew bi tëdd fii jumbaxam ba ci óomam waru leen koo xool ñoom nag ñu def la noonu ndeysaan waaw suñu benn xarit rakkam bu jigéen dafa gaañu hôpital Thiaroye ñuy wër ku ko sang ñu ne benn maire mën na sang mu ngi Thiaroye géej Thiaroye xaw ma ginnaaw raay ñu dem jëli ko mu ñëw dugg sama benn xarit bu tudd Oustaz Ousmane Diouf ñu toog ba caag rek ñu woo ko ne ko kaay nga dimbali ñu mun a dugg rek mun a mu fekk ñu ñu futti néew bi dong rek mu daw génn mu xool ma ma xool ko mu ne ma kii mënul sang ma ne ko lan la mu ne ma damaa fett ñu fu- damaa fekk ñu futti ndaw si dung ni ko yaayam juree loolu kenn du ko def néew képp kuy def loolu mënoo sang néew te nag looloo fi am naa ko jéngu rek naa ko jéngu amoon na benn waay bu dee ci accident fii ay numaan ñu jële ko hôpital indi ko ci morgue bi waa ji kenn ñemewu ko xool ndax deret ji ni mu ko sangee kuñ ne kaay sang ko boo duggee génnaat benn imaam de xoolal muy dëgër fit mu ne fay leen ma ma sang ko gaa yi ne ko demal soo génnee loo wax ñu fay mu simmee ko wékk grand bi te sol gants yi ñu ubbil ko buntu bi mu dugg rek génnaat ñu ne ko imaam mu ne sama yaram ñemewu ko parce que mënuñ jànguñu xamuñu ni ñu koy sange néew ku accident de am na nu ñu koy sange bu dee bopp bi dafa toj bu dee dafa am dañ ko autopsie lu nekk am na nu ñu koy sange mais mënuñu bu dee bopp bi moo écrasé wu dañuy jël coton bu bëri paquet bi ni mu mel noonu boo ko dajjee doo ko daggat ay daggit noonu xam nga rouleau la rouleau bi ngay jël laxas ci bopp bi ba mu ba lépp mat nga jël mbuusu cent franc yi bële yi sol ko ci bopp bi daal di takk fii sang yaram bi jeex na jeex na jeex na takk c'est simple jeex na mais buñ jàngulee day nekk di rajaxe rek léeg-léeg nga gis ndeysaan néew bu am yenn accident yu grave yi ñu koy suul nga gis deret ji di sotteeku ci perekaal bi di génn maanaam deret ji sax warul feeñ bu fekkee ki la sang xam na professionnel la deret jooju warta génn ci perkaal bi wala ci malikaan bi di ci- nit ñi di ko gis mais bu ñu xamulee nga fekk koo xam ne misaal dañ ko autopsie dañoo xotti baat bi ba ci jumbax bi ñaw ko hôpital noonu la ñuy def bu ñuy autopsie dañuy xotti put bi ba ci jumbax ba ci naq bi parce que yi ci biir la ñuy jël bu ñu paree dañ koy ñaw ak fil est-ce que fil mën na téye deret da ngay gis deret ji di génn ko def ñu bàyyi ko noonu nag ñu ne la pare nañ kaay jël sa néew nga jël ko dugal ci kees indi ci morgue bi koo ki koy sang lu mu koy ta- sangee raakol lay tiim di ko sang deret ji day génn fekk ndox parce que ndox mi day dugg ci biir foofu voilà soo ko sangee ba pare ak ñaw boobu lan nga war a def ba deret ji arrêté ba deret ji du tax ci yére bi coton bi ma waxoon sànq paquet bi ni mu mel noonu rek ngay jël tàllal ko ci ba mu tàll ko nga jël beneen su jolu su boyul ba nga jël beneen boo ko ciy teg balaa ñu koy sàng di ko yeew di ko génnee ci jàkka ji di ko jullee balaa deret ji di ñëw ci perkaal bi day fekk suul nañ ko ba pare parce que huitaine bi moo koy bloqué mais mala saf fii Sénégal mbir yaa ngoog daal yal na nu yàlla dafa sutura waaw juróom-benneel mooy al iman bi mathabatil xayaa soo déggee doomu aadama yaa ngay dund mooy dañoo gëm yàlla nit ñi nit ñi ngay dund dañoo am iman ku amul iman da ngaa dee yéeféer nga nit ñi ay yéeféer lañ kon dañoo dee ndax islam moom li mu reconnaître mooy kuy dund yaay jullit ku nekk jullit yaay dund ku nekk yéeféer dundoo lu tax ku am kuy ku nekk ku am ngëm yàlla yaay yaay dund ndax ña- ñi gëm yàlla ñoom ñoo représenté yàlla ci kaw suuf ñoom la yàlla xiima xiima àddina bi li nit ñi bari bari bari ñi gëm yàlla rek la yàlla reconnaître ñeneen yëpp ca yàlla ay mbalit lañ duñu dara loolu mbokk jullit yi mooy sunu darsu tey ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi inna allaha faaliqul habbi wan nawa
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
barakallahu fiik jazakumullahu xeer am naa yàlla fay la yow mbokk yi sunu boroom subhaanahu wa taala nee na inna allaha faaliqul habbi wan nawa moom sunu boroom deñul di leeral bi ñu def ay dalil ay lay yu weex yu yu ne ràññ yuy wane ne moom yàlla dafa war ñu kennal ko moom yàlla jalla jalaaluhu waaye ay dañul di weddi di yàq jaamu keneen ku dul yàlla tabaraka wa taala moo tax ci aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom mu melal boppam ci ay jëfam yu màgg yi muy jëf ak ay xereñam yoo xam ne dafay saxal ne moom yàlla moo moom mooy kenn mooy yàlla moom dong lañ war a jaamu lépp moom moo ko moom ci xereñam moo ko sàkk kon dañ koo war a kennal moom yàlla loolu wuuteeg nag li bokkaalekat yi di wax ci ay yàlla yu bare bare bare yàlla bii mooy def lii yàlla bii mooy def lii moom yàlla sunu borom mu weddi loolu lépp moo tax mu ne inna allaha naka yàlla faaliqul habbi mooy ki xotti pepp wan nawaa ak xoox alhab mooy grain ah bu tuuti bi comme dugub comme ah mboq comme blé comme ah waaw loolu mooy xab mooy pepp suñ ko jiyee ci suuf kan moo koy xotti pour mu sax sunu borom moom yàlla mu ne wan nawaa ak xoox xoola xoox ni mu ne keng wo koŋ xooleen xooxu tàndarma kan moo ko mën a toj xoola xooxu konkorong ni mu woowee koŋ xoola kóoni ni mu ësee dëgër ne këj sunu borom nee na loolu yëpp maay ki ko xotti bañ ko suulee maay ki ko xotti ci suuf saxal ko mu daa def sax kii ji day ñëw rek suul dem yoonam wala baykat bi wala bu bu ko suulee ba pare day toog foofu yor yor ndoxam toog day dem yoonam jëlal gerte rek moo ci gën a ndaw gerte soo gerte soo jëlee benn doom bi da ngay gis bakkan bi fi mu nekk bakkan bi gerte gi dafa am bakkan suñ ko suulee gis nga bakkan boobu lu mu tuutee loolu mooy sax loolu ñuy lekk ñun ñii grain gerte gi loolu ñuy lekk du sax de loolu da ngay gis sax gerte gi bu saxee nii toj suuf si génn da ngay gis mu daal di indaale ñaari mbagg yi suba boo ñëwaatee mu daaneel ñaari mbagg yi jóg taxaw bakkan bi dong ngay sax lu tuuti loolu grain bu ndaw boobu moom dong ngay sax waaye ñaari mbagg yi duñu sax ah xam ngeen lool loolu kan moo ko def sunu borom jalla jalaaluhu moo tax mu ne inna allaha yàlla faaliq mooy ki xotti shaq alhabba moom yàlla mooy ki ko xotti wan nawaa ak lan ah xoox mooy saal bi mu ne foofu encore nga dégg bu baax yuxriju yàllaay génn alxay luy dund minal mayit ci lu dee yuxriju yàllaay génn alxay luy dund minal mayit ci lu dee ginaar fan la génne ci nen nen day dund wala dafa dee ah dafa dee nen ak ginaar ku mag ah ginaar fu mu jóge nen fu mu jóge ah nen fu mu jóge ginaar fu mu jóge kon nen a ginaar ku mag ku ko turbe rek am am am am am tey ndog bu neex ginaar moo mag ginaar nen fu mu jóge ginaar fu mu jóge ah bismillah ah waxagoo dara de da nga ne yàlla mën na lépp ah ginaar moom ak nen waaw ginaar moom ak nen d'accord naa yow loolu nga wax waaw ginaar googu fu mu jóge ah waaw ah ginaar moom ak waxal ginaar moo ñëw nen ginaar dafa dund te nen ñu ko ah waaw yéen ginaar mën na am te nen amul nga ñëw sa kaaf rek fekk fa benn ginaar gu taxaw loolu wax leen ma bismillah yàlla moo bind ginaar bi muy ginaar ginaar la bind wala nen loolu ban aaya la ah nen yàlla nen la bind ban aaya la yàlla daa ne
nen la mooy peeram waaw léegi ñaari ginaar yooyu yàlla bind ana seen ku leen nen
Saal nen bi moo mag ndax nen bu amul ginaar du am.
nen boobu ku ko nen kon nañ nañ- nañ leen tafsir ba pare ñu continuer foofu goro suukar bi du demee noonu de goro suukar bi demee noonu inna allaha yàlla faaliqu mooy ki xotti alhabba pep saxal ko wan nawaa ak xoox mooy saal yuxriju yàlla génne alxayi luy dund minal mayiti ci lu dee yàllaay fekk loo xam ne day dund mu génne ci dara mu dee nen mu ngi génne ci ginaar ginaar mu ngi génne ci nen kenn ki day dund kenn ki dee ah est-ce que loolu kese la grain bi nga jël xoox bi nga jël xoox bi dafa dee wala dafa dafa dund ah nga dem nga jëmbat ko après yàlla génn ci garab garab gi day dund wala daa dee mu ngoog dugub bi nga jël sa kër yóbbu ko ba ci tool yi suul ko dafa dund wala dafa dee yàlla daal di taw mu daal di sax dugub ji daal di jóg kon yàlla subhanahu wa taala yuxrijul xayi min al mayit wa yuxrijul mayit min al xayi day gis ñaari yéeféer ñu jur jullit ñaari yéeféer dañoo dee ki ñu jur mu nekk jullit kooku dafa dund ma tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw écrasé ko waaw yuxrijul sunu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne lu ko neex lay def moom xam-xamam romb na wees na xam-xamu doomu aadama te li muy def xelu doomu aadama mënu koo daj mënu koo peeg am na ci ay saal yoo xam ne grain yoo xam ne doomu aadama mënu koo dóor ba mu toj xoolal nen kenn mënu koo toj ak sa loxo sa ñaari loxo yi bu ñu la joxee nen ñu ne la bës ko mu toj mënoo ko wala te boo jëlee sa baaraam bi fëgg ko ci wee bi këng këng mu toj waaye bu ñu la joxoon sa ñaari loxo yi jox la nen ne la def ko nii toj ko nga def ko nii mënuloo ko dërëm ko wedd ñu indi ji nen léegi jox la essayé nga ko foofu nga toll
am na benn liggéey moo tax mën a ko daal fekk ko ni ma.
loolu yàlla la beneen bi mooy xoolal bant bale bant bale buñ la joxee benn ne la damm ko ah nga damm ko bale bi yëpp damm ko mën nga ko banti bale bi ni mu melee noonu kenn mënut a dajale banti damm leen kenn mënu ko ku la neex dama ngay indi ko kenn mënu ko yàlla ay mbiram ay kéemtaanam sori wuñu ñun ñooy xalaat suñ la nee yàlla rek ngay xalaat ay asamaan fekk mu ngi sawet sunu borom subhanahu wa taala mu ne moom yàlla comme moom moo def lii daf lay wax ay mbiram yoo xam ne moom dong nga ko mën doomu aadama mënu ko pour nga bàyyi xel ne kon yàlla mi amul moroom yuxrijul xayyi min al mayit mooy génne lu dund ci lu dee wa muxrijul mayit min al xayyi moom mooy génne lu dee ci lu dund mu ne zalikumullah kooku di def lii mooy yàlla waaw kooku di def lii mooy yàlla de amul keneen kuy yàlla ku dul moom kooku nga xam ne mooy xar pepp génn ci mbay génn ci dugub kooku nga xam ne mooy xar saal génn ci garab kooku nga xam ne mooy fekk lu dee mu génn ci lu dund kooku di fekk lu dund mu génn ci lu dee kookoy yàlla amul kenn kuy yàlla bu ñu war a jaamu ku dul yàlla bii di def lii mu ne waa kon faan naa tuufakuna fu ngeen jëm naka lañ leen di soppee ba ngeen dem di jaamu keneen ku dul yàlla su fekkee kii mooy yàlla ay jëfam kenn mënu ko jëf moom kenn moo ko mën ndax kàttanam ak xam-xam ak xereñam kon naka lañ lay soppee yow mii ñu walbati la détourné la ba nga bàyyi yàlla topp keneen naka ngay abalee sa xel keneen nga topp ko bàyyi yàlla naka loolu noo ko mënee yow doomu aadama ginnaaw ba nga xamee ne yàlla rek ay yàlla kenn du yàlla ku dul moom sunu borom subhanahu wa taala yemul ci lool rek mu ne faaliqul isbaahi moom yàlla mooy xotti suba yi mbir mi day lëndëm nga jékki-jékki ci biir lëndëm gi yàlla daal di koy xotti génn ci suba allahu akbar asubhu leer moo ciy génn rek lëndëm gi daal dem suba gi daal ne keng daal di génn kan la kan moo ko def yàlla yow sax lëndëm gi nekk sa biir néeg bi boo ko bëggee changer foog ñu dégg bruit yàlla moom guddi gi bu ko fiy jële kenn du dégg bruit bu fiy jële ngoon gi kenn du dégg lumière bi bu ko fiy jële kenn du dégg bruit bu jant bi di fenk da ngeen dégg bruit da ngeen jékki-jékki rek mu leer nañ bu guddi ñëw da nga dégg bruit demal sa biir néeg nga bëgg a am lumière ndax da nga dégg bruit wala doo ko dégg di nga dégg wala doo dégg looy dégg ah looy dégg contact bi ne trek nga laal ko mu ne trek yàlla nag buy contact guddi di lampe bi di tàkk jant bi da ngay dégg tàkk lu ngeen dégg dara da nga jeg rek gis jant bi génn bu guddi gi di ñëw da ngay dégg contact bi kan ci ñun mooy dégg bu yàlla di génne guddi gi contact bi nañ ko ci loxoom mu ngoog kon suñu borom du morom beneen bi mooy ñaata at lampam bi di tàkk kenn changé wu ko mës ngeen gis waa Sénégal ñu yëg kaw asamaan naan dafa burle wax leen ah seen lamp yi seen biir néeg seen kër yi ñaata yoon ngeen ko changé ñaata yoon ñaata at la jant bi tàkk ba léegi boobu ba léegi ñaata at dem leen bu ñu bu ñu paree jàng dañuy dem suñu papa boo dem sa papa nga ne papa jant bi ñaa ñaataat nga ko fekk muy tàkk mu ne la hee sa waay man fii laa ko fekk soo demee laaj sa maam loolu la lay wax ko ɗomin tawi ɗum an holko gartirɗa hannde Hmm, ndeysaan kon yàlla ngoog yàlla du suñu moroom ay jëfam xool leen géej gi ba ba léegi yéen a ngi lekk jën ah ndax jën yi jeex nañ ah jeex na ndax jeexut te ba ba léegi yéen a ngi lekk doo dégg mukk ñu naan eh, dëkk bi dañuy grève ndax jën amut ba ba léegi yéen a ngi lekk yàpp xar yi dañoo jeex nag yi dañoo jeex parce que yàlla moo ko moom yàlla li mu am def daf cee giijal daf ko giijal doomu aadama nag ndeysaan boo amoon gétt di rey di rey di rey di rey ba koor gi waaj a jeex boo ñëwee mu ne la tey de wax dëgg yàlla mbiskit ngeen di ndogoo ndax xar yi jeex nañ wala ginaar yi jeex nañ wala mboolem yàlla lu mu sàkk ak loxoom loolu du jeex wax leen ma ci lu ci jeex rek wax leen ma ko xar yi dañoo jeex ginaar yi nag pitax yi nag ah ah njombar yi nag yàlla lu mu sàkk du jeex chaque jour da nga ko fii fekk da ngay lekk ba sonn dem sa morom ñëw lekk ba sunu maam yi dem nañ lekk ba suur sunu baay yi ñëw ñun ñoo ciy tegu ñu nit léegi ñu dee sunuy doom ñëw yàlla dafa giijal li mu yor du jeex moo tax mu ne man yàlla jaaxal na ma ku ma fi romb di ñaani doomu aadama moroomam waaw man yàlla jaaxal na ma ku ma fi romb di tàllal moroomam loxo te mu dégg yàlla mu ne walillahi xazainu samawat yàlla ne na magasin asamaan ak suuf yi maa ko moom ku fi am sax maa la dénk tuuti rek te su ma neexee ma coppati ko nangu ko te kooku am kat tuuti la am tuuti tuuti yenn saa nga dégg ñu naan wuu waa ji multimilliardaire la d'accord léegi multimilliardaire boobu nañ ko jël ñaata kër la am hmm? ñu ne adduna bi fu nekk am na kër acca d'accord naa kër yooyu ñaata kër la ciy fanaan ah benn kër lal yooyu ñaata lal la ciy tëdd jabar yooyu ñaata jabar la ciy fanaanool yére yé yéen ñi toog fi yëpp ku nekk ñaata yére nga am bëri na fii nga toog ni ñaata yére nga sol ñaar paire daal nga am fi nga toog ni ñaata nga sol jeex na kon bul sonn te léegi nga dee bàyyi ko fi keneen ñëw sa doom ñëw léegi ne waaye bàyyi père ñaan naa ko dàll yi ba sonn joxuma ko waaye jël naa ko de arama entraîné ji ko léegi waaw beneen samba booy jóge fële ñëw takk sa soxna jaaxaan sa kawlal naan ko yow sa jëkkër ji njëkk ji dafa con quoi fenêtre bi xoolal fi mu ko def moo tax néeg bi tàng fii la ko waroon def nga dégg ndaw si naan ko waaw waaw pourtant wax naa ba sonn kon jabar ji sax moomoo ko booy dee léegi keneen ñëw boo ko fasee keneen ñëw kon moomoo ko ndeysaan fi amoo fi dara lépp dañ la koo dénk rek ñu abal la ko wamal maalu wal ahluuna illa al wadaa'i fala budda yawman an turaddu al wadaa'i alal ji ak njaboot gi yàlla dala koo dénk bisa ngi ñëw mu ñëw nangu si ko yàlla dala koo dénk rek bisa ngi ñëw mu ne la sawaay nga ne ah mu ne la ñëwal indi nga naan yàlla maa ko moom mu ne la bi ngay ñëw ndax daa ko indaale woon jàng nañ ko démb yàlla mu ne wala qad ji'tumuuna furaada kama xalaqnaakum awala marra dikk ngeen ma tey yéen ñëpp cundum kenn kenn comme ni ma leen bindee woon bi ngeen di gane si àdduna kenn kenn ngeen doon ñëw te yéen a ngi ni àllaaxira ñëw par kenn kenn moo tax perte na ku yaakaar ne boo dee am na ku yor sa dossier taxaw di xaar yaa ngi moom yéen ay ànd mu ñëw ba buntu aljanna yàlla fëgg fii fëgg ana yàlla mu ne maa ngi ni mu ne ki- ki sama taalibe la na dem àjjana perte nga ku pe ku gëm loolu perte nga yàlla nee naa yowmal xiyaam booy ñëw ñaar ngay àndal ñaar ñaar ku dee bay dekki jëm ci yàlla ñaar ngay àndal ci ay malaaka lañ te kenn ki xam nga nu mu lay def fii la lay poñe kërëj ñu dóor mënut di sa loxo def la ko nii ci ginnaaw mënute la malaaka bi ne zacc fii sa doq wa jaa kullu nafsin maaha saaiq kooku mooy saaiq keneen ki yor dossier yi ne nii kooku mooy shahid moo lay seede bu ñëwee ba kanamu yàlla daan lay teg malaaka yi jël registre yi nag commencé ndeysaan ana avocat yi nañ ñëw peleeri kanamu yàlla nañ ñëw sol seen robe yu noir ñëw yàlla mu ne yowmal xiyaam kenn du ko wax kenn du wax ñëpp nga à genoux ne pat di xaar yàlla kon nag xam nga lu wér te dëgg mooy nan leen jaamu ji yàlla bàyyi caaxaan réew mi dañoo yombal mbir mi détourner nit ñi nax leen def leen ay kuréeli kuréel ay këri kër kenn ku ci nekk sawaay bu sa kilifa di wax day mel ne am na lu mbokk ak yàlla waaw waaw waaw fii da ngay jékki-jékki sax man sax ku ma gis dugg àjjana yonent bi ay nit gis ko dem safara ndax am na ku gën a màgg yonent bi ah am na ay nit xool yonent bi jëm safara yàlla wax ñu ko fii nga bëgg yow ku la gis rek dem àjjana ku la gis xanaa boo da ngaa war a bokk kuy jaamu yàlla sax waaye man ku ma gis rek ku ma gis rek texe nga waxal sax boog jullit boo kon chrétiens yi sax bu ñu la gisee dañuy texe yahud yi dañuy texe animistes yi dañuy texe ñi ate dañuy texe loolu du dëgg Ibrahima mooy xaritu yàlla wala du yéen a koy wax Ibrahima ana baayam a nga safara te yàlla moo ne ibrahima sama xarit la wattaxaza allahu ibrahima xalilan te baayam a nga ca safara ana ana yonent yàlla nuux mooy seyxul mursalin jabaram ak doom a nga safara ana luut jabarama nga safara ana Musa cousin ma nga safara Qarun ah ana Firawna jabarama nga àjjana te Firawna gën a yées ci àdduna bi te jabarama ngi àjjana ah, jëlal Nuux jël Firawna Nuux yonent la yàllaa ko yónni jabaram nekk safara Firawna kàccoor la saay saay la jabaram nekk àjjana kon mbir yi fu mu nekk kon mbir yi ci loxo yàlla la nekk nekkul ci loxo ma sàmm nekkul ci loxo ma demba yàlla xam nga kan la xam ku ko jaamu ku ko jaamu la xam yàlla xamul koo jaamuwut te koo jaamuwut suba di nga réccu ak koo mën a àndal kooku sax du wax bu la yàlla di laaj sax du ko fekkee ndax yàlla bi mu lay bind moom fekkewu ko kon naka la la yàlla di la di la laa- di di la attee sa digganteeg moom muy woo kooku naan ko eh eh, kaay yow kaay taxaw fii kan ci ñun fii bi ko yàlla di bind dafa tàggu suñuy yaay sax biñ ñuy ëmb suñuy yaay yëguñu ne dañoo ëmb dañoo toog ba yàgg rek daal di dem kër docteur ñu ne yow da ngaa ëmb de ah ah da ngaa ëmb de mu doog a ñëw ne borom kër gi man de dama ëmb ñoom ñaar ñëpp kenn yëgu ci tus kon nag jeex na su juddu jotee aussi xamuñu ban heure la de dañuy daw dem hôpital rek nga yegg si sage-femme yi ne ah heure bi jotagut de yàlla ne liir bi neel tekk ci biir ma xool man la wala ñoom la ñëpp ay sonn ndeysaan waa kër ga dañuy découragé di xalaat ndaw si day am doom wala day dee doom ji day dee wala yaay ji day dee papa ji fële lay toog yor kurusam yaa latif ah yow sama borom yaa latif ndeysaan sama soxna nee na ma maternité dafa jékki-jékki dégg benn jigéen naan ay yàlla ñëwal bul yónni kenn yow rek laa soxla nga ñëw ñëwal bul yónnee ko ñaw suñu yabee yàlla léegi la suñu yabee yàlla rek dafa nooy waaw ndeysaan da ngaa tiim sa ginaar rek ak sa benn njarum soow lekk ba suur naan ba mandi daan ne "Ugh, jërëjëf diw waaw loolu la da ngay gis ku woor ba ngoon ñu tegal la ginaar nga ndogu ba pare au lieu nga ne alhamdulilah nga ne jërëjëf diw waaw waaw ndeysaan yàlla mën a muñ te loolu ndeysaan gis nga sa doom du sa jabar bu ko defoon sa jabar bu toggoon bu lekkoon ba pare daan na jërëjëf sama far bi sa kanam ñan ñoo am jabar fii ci biir kër gi sa jàkka ji kooku ku fi jabaram def loolu lay def ah fase balaa fase bi kay fase bi kay xam nañ ne moom fa la jëm waaye balaa fase bi fi mu koy wax ak ba muy këppu sa doom sax bu ko defoon lekk ba pare daal di gërëm beneen bàyyi yaakaar naa ne keroog ya du baax waaye léegi nag yow naka ngay ji- nekkee jaamu yàlla yàlla wërsëgal la bàyyi ñëpp nga lekk ba suur daal di géex war a sant yàlla di sant keneen koo xam ne mbir mi yàlla jox la moom indiwu ci dara moom dee na bu yàgg fekke wu ko sax bi la yàlla di la jox lii ginaar gi yàlla jox la waxuma yàlla yem ci wërsëgal la ginaar hmm? waaye yàlla dalaa wërsëgal ba wërsëgal la ku la ko toggal nga xëy nekk say mbir am keneen ku yàlla dugal ci waañ bi mu la koy liggéeyal ba mu pare ñëw teg nga war a sant yàlla sax wa amma bi ni'mati rabbik xéewal yi la yàlla yàlla mu ne santuma sax bopp i'malu ala daawuda shukran wa qalilun waaw yàlla xam na yàlla xam ne nit ñi ay traître lañ ay jaam lañ moo tax mu ne wa qalilun min ibadiya shakur néew ña ci jaam yi ñu may sant dama delloo njukkal man yàlla waaw waaw ba ci jafe-jafe yi ba ci feebar yi da ngay gis ku feebar ah am am kenn ku la ne waxal dara nga wax ko wér rek koo gis rek wér ngeen ko demal ci diw non wóor na yàlla kooku du nit ngand la gis nga man def man kooku la wéral wala yàlla yàlla la wéral de wallahi yàlla moo la wéral wallahi yàlla la may wallahi bi nga ñàkkee yàlla la may bi nga xamulee yàlla la xamal examen bi du big bi de du téere bi de yàlla moo la may kon santal yàlla waaw ngay sant yàlla waaye dem di sant ay gisaanekat ak ay buxaabaak ay xarfa fuufaak yu kenn xamut Sénégal billaahi bu doon du ndomb bi damay dee benn waaye accidenté na ñu dégg ko ñun ñëpp ñu daw ñëw seeti ko këram mu ne ma oustaz ma ne ah mu ne ma yéen da ngeen di weddi gàllaaj waaye man de bu ma gàllaajul woon damay dee gàllaaj bi ma sauvé de ah ma ne ko ah mu ne waaw waaw ma ne ko maa ngi ñibbi comme yow doo delloo yàlla njukkal yow doo gërëm yàlla ñi nga àndaloon ñëpp dee nga rëcc nga ni téere bi la addunaa ngi sa kanam foofu la nit ñi toll bu ma bu ma takkuloon bu ma gàllaajuloon damay dee ana yàlla bi ngay judd da nga gàllaaju woon pourtant ñun ñëpp dañoo ñàkk xel rek waaye bi ñuy judd fi ñuy jaar ñëw fi ñuy judd génn ci suñu yaay ne cupp ñëw foofu kay moo gën a garaaw accident foofu loo takkoon yàlla nee na fii zulumati salaata ci ci ñetti lëndëm ci biir ci biiru butit ci biir ci mbaq ñetti lëndëm foofu luñ takk jigéen bu biiree doom bi nekk ci biir lu lu biir lu doom bi takk ci biir bi wax leen ma ko ñun ñëpp bi ñu nekkee suñu biir yaay lan lañ takkoon lan lañ naanoon ana ndomba bi ñu takkoon yàlla mi doon sàmm ci biir boobu kay boo génnee mën na laa sàmm wala mënu ko ah wallaahi mën na ko ci ñetti lëndëm nga nekkoon ñetti lëndëm lëndëmu butit lëndëmu mbaq lëndëmu biir yàlla mu ne fii zulumati salaas yàlla mu ne ma génne la nga ñëw di ma bokkaale yow yaa ñàkk jom mu ne moom yàlla faaliqul asbaax moo xotti suba yi wa jaala layla moo def guddi sakkanan muy dal lépp tranquille yaskunu fihi naas guddi day dal lépp nit ñi mën a nelaw mën a noppalu moo tax yàlla mu ne wa jaal na layla libaasan guddi sutura la tey jii fii ñu toog kan ci ñun moo ñemee def yaramu neen jaar nii jëm bies doore bi jëndi mburu waaye bu dee guddi dañ ko ñemee ndax kenn du xam ne kii kan la yenn saa nga gis benn paa bu xërëmkat yi jox gàllaaj ne ko da ngay bàyyi ba guddi nga def yaramu neen nga sangu ci selebe yoon nga jékki-jékki rek gis am ponkal mu def yaramu neen sànq lañ sànq la ma benn waay doon wax mu ne dafa am ko ko doon nettali ne ko am na benn président de la république boo xam ne day bàyyi ba guddi mu dem ci géej gi di silibu neen di sangu ay xërëm benn président laa wax nag waxuma kenn benn président loolu yëpp loo koy won mooy ñàkk am pas-pas ci yàlla moo da nga gis nit kuy sangu daf yaramu neen ci mbedd nekk kilifa de ñenn saa nga gis paa bi mu yor benn paan nekk ci kaw garab gi di sangu waaw moo tax boo gëmul yàlla da ngay dof lu ñu la waxal defal nga def ko waaw yenn saa nga gis ko dañ ko ne da ngay da ngay sëlmoo doomu taal mu jël doomu taal vuru ci kanam gi ñu yenn saa gis koo xam dañ ko ne da ngay dagg sa baaraam bi sa baaraamu tànk wala sa baaraamu loxo sacrifice yenn saa gis koo xam dañ ko ne da ngay rey sa yaay wala nga rey sa jabar wala nga rey sa doom ki nga gën a bëgg moom ngay joxe nga gis mu dem sacrifice rey ko waaw am na benn waay boo xam ne semaine bi xaw na yàgg tuuti dafa ànd ak soxnaam Maroc soxna si dee fa gaa yi ne